alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah bokk yi noo ngi sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi alhamdulillah nu fas yéene dellu si waat àndaat ak ci sunu fàttalik tafsir sunu tafsir gu mujj noo ngi toll woon ci laaya ñeen fukk ak juróom-ñaar ci suuratul mudathir fi sunu boroom di waxee ni xatta ataana yaqiin kon insha allah tey ñu war a tàmbale ci laaya ñeent fukk ak juróom ñett fama tanfaahum shafaatu shaafiin fi ñu mujje fàttali booba yàlla suñ boroom mu ngi doon wax ni ñi nga xam ni tàbbi nañu sawara boo leen laajee li tax ñu tàbbi sawara dañu lay wax ni ñoom kat daawuñu julli teyit daawuñu leel miskiin yi daawuñu dimbale miskin yi teyit daawuñu ñaax nit ñi ngir ñuy dimbale ba noppi dañ doon weddi yàlla ba dee dikkal leen yàlla nag mu ne ñu mel noonu day famatam tanfacuhum du leen jariñ shafaatu shaaficiin rammuk aji rammu ja nee na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla du ñu julli doonte sax ay jullit lañ nekk tuddee seen bopp ay jullit waaye lànk bañ a julli du ñu dimbale ku ñàkk te du ñu ñaax ngir ñu dimbale ku ñàkk yàlla mu ne ñu mel noonu day kenn du leen mën a ràmmu ëllëg yowmal qiyaam kenn du leen mën a ràmmu ëllëg yowmal qiyaam du malaaka moo leen mën a ràmmu dub yonent moo leen mën a ràmm te du kenn ku yàlla gërëm moo leen mën a ràmm mukk soo ko déggee nag kon yowmal qiyaam ndek ràmm mën naa am waaye nag day fekk kookee di ràmm yàlla suñ borom tabaraka moo ko ci jox ndigal moo tax yàlla mu ni man da alladi yashfau indahu illa bi idne yàlla mu ni yowmal qiyaam ana kan mooy ràmm ca foofa kudul koo xam ne yàllaa ko jox ndigal koo kan la amut kon ku yàlla jox ndigal rekk lay doon yàlla waxaat na ni wala yashfacuuna illa liman irtadaa wa hum min xashyatihi mushfiquun yàlla mu ne yowmal qiyaam kenn du fa ràmm lu dul koo xam ne yàllaa ko gërëmal boppam ba noppi mu nekkoon ko ragal yàlla lool yàlla jox ko ndigal mu ràmm léegi nag ñu baree baree bari dañuy gis ku baax ñu jàpp ni kooka mën naa ràmm ëllëg ba dañuy jël seen yaakaar gépp wékk ko ko ni diw lañ yaakaar bu ëllëgee moo ñu dugal àjjana diw moomu nag dara wuurut ñu ndax dana bokk ci ñu yàlla di jox ndigal am déet dara wuurut ñu it ndax dana bokk ci ñu yàlla di gërëm am déet kon li wér mooy sax ci la suñu borom bi digle nekk ci lu baax nekk ci jaamu yàlla jox yàlla cër bi moom looloo gën a wóor kon yàlla mu ni ñooñu day fama tanfaahum shafaatu shaafiin nee na du leen jariñ ràmmuk aji ràmm ji yàlla nag mu teg ca mu ni fama lahum waaw ñoom lan moo leen dal ñoom yéefari ñoom kàccoor yi mu'ridin lañu taqdim ani tazkira fama lahum ana lan moo leen dal mu'ridin ñuy dummóoyu ani tazkirati ci alquran ak ci waare wii yàlla mu ni fama lahum ani tazkirati mu'ridin waaw ñoom ana lan moo leen dal ba buñ déggee alquran rek di ko dummóoyu wala buñ déggee yonent bi di leen waar ñu dummóoyu ko suñu déggee lu baax rekk du mooyu ko ñoom lu leen dal lu leen dal yàlla mu ni ka annahum ba mel ni ñoom dañoo mel ni xumurun ay mbaam mustanfiratun yoo xam ne dañu leen a dàq farrat muy ñuy daw min qaswaratin ci gaynde gu leen nara a fàdd yàlla mu ni lan moo dal saay-saay si ba fuñ déggee alquran du mooyu ko ba fuñ déggee waar du ko fu ñu déggee lu baax du ko ñu mel ni ay mbaam yuñ dàq ñuy daw ba mel ni mbaam muy daw gaynde gu ko bëgg a fàdd allahu akbar loolu xas gu metti la ci képp koo xam ni da ngay dummóoyu alquran wala da ngay dummóoyu soo déggee lu baax xas xas la wu ñaaw te loolu nag yàlla da ko xase képp kuy ab yéefar di kàccoor waaye nag ba fi mu toll nii képp koo xam ne nanga waloo dégg alquran nanga dégg lu baax wala foo ko déggee sànni ko yaag ñoom yéen a yem ndax yàlla wax na ci alquran mu ni wa ida dukira allaha waxdahu shma azzat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira wa ida dukira alladina min duunih ida hum yastabshiruun yàlla mu ni bu ñu tuddee yàlla yàlla nga xam ni yàlla ku wéet la di tudd yàlla wala ñuy tudd alquran wala ñuy tudd lu baax nee na ñi nga xam ne ay saay-saay lañ gëmuñ yàlla seen xol day naqari ca loola da cay metti waaye buñ tuddee leneen lu dul yàlla rekk moo xam muy leneen mbiri ëdduna ñu daal kontaan ñu daal kontaan te dafa am ba léegi am na ñoo xam ne tey fu ñu déggee kuy waare rek ñu tëj seeni nopp wala ñu dëmooyu walla ñu lànk wala ñun la gëmal sa bopp gëmal li nga gëm te bàyyi ñoo li ñu gëm dañuy lànk dañuy lànk waaye suñu waxee leneen rek ñu ne d'accord dëgg la dëgg la dëgg la yàlla mu ne ñooñu nag lu leen dal lu leen dal ba ñu mel ne ay mbaam yuy daw loolu nañu ko wattandiku bu baax mbokkum jullit yàlla mu ni bal li fi nekk yuridu dafa bëgg kullum ri in kenn ku nekk ci ñoom kenn ku nekk ci cam minhum ci ñoom an yu'taa ñu jox leen suxufan ay téere munasharatan yoo xam ni dañu ko yebal dañu ko tasaare ci ñoom maanaam li tax ñu bañ a dégg lu baax li tax ñu bañ a déglu alquran kenn ku nekk ci ñoom danga bëgg yàlla wàccee ci yow téere comme ni ko wàccee ci muhammad te loolu mënta nekk ñu bari tey bu ñu déggee nit ki di wax lu baax di leen waar dañuy dummóoyu lànk bañ ko topp parce que déglootuñu wax ji ci boppam waaye jëmmi doomu aadama ji lañuy xeeb wala moom lañuy bañ wala ca askan wa mu bokk wala ca paspasam ñu baree bari noonu lañ mel dinañ dégg nit ki wax lu baax wax waxu yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam di alquran ju wér di sunna su wér waaye dañuy bañ parce que dañoo bañ nit ka wala ñu xeeb nit ka wala ñu ne pas-pasam baaxul wala ñu ne gëmut li ma gëm dafa bari ci doomu aadama yi dafa bari ci doomu aadama yi waaye nag yàlla mu ne kallaa li fi nekk li fi nekk dëgg nee na daf ne kallaa nee na déet mbir mi du demee noonu maanaam yàlla du def ku nekk rek mun la am sa téere ngi nii am sa téere ngi nii yàlla mu ni kallaa déedéet du ma ko def waaye nag bal bal neena li fi nekk laa yaxaafuuna al axirata ñii dañoo gëmut alaxira dong moo tax ñuy bañ a déglu waaraate ñu baree baree baree baree tey bàyyiwuñu xel ëllëg yowmal qiyaama li nu bàyyi xel rek mooy tey ak àdduna ak liñ fi mën a am ñu baree baree bari bàyyi wuñ xel ëllëg yawmal qiyaam ñoom daal jël nañ seen lépp rekk wékk ko ci benn waay yaakaar ne kookaa leen di tàbbal aljanna wékk ko seen lépp lu mu wax mooy dëgg lu mu waxut du dëgg suñ déggee keneen kuy wax lu baax jëlee ko ci alquran ju wér sax dañ naan déedéet dañuy lànk nanguwuñ waaw nanguwuñ waaye yàlla mu ne li fi nekk daal mooy dañoo gëmul àllaaxira dong te loolu nag yàlla suñu boroom taggoon na saxaaba yi ci gëm gu ñu gëm àllaaxira ba mu tax leen doon ñu baax ndax yàlla def ni leen rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillaahi wa iqaami salaati wa itaa zakaa yàlla mu ne saxaaba yi day ay jàmbaar lañ yoo xam ne jënd ak jaay du dox seen diggante mukk ak alquraanul karim jënd ak jaay du dox seen diggante mukk ak taxawal julli jënd ak jaay ak alalu àdduna du dox du dox seen digganteeg mukk joxe azaka lu tax yàlla mu ñu lu tax ndax kat yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi alqulubu wal absaar ndax ñoom kat dañoo ragal alaaxira dañ koo bàyyi xel dañoo bàyyi xel bis bi nga xam ne xol yépp day tiit xol yépp day tiib yaakaar ne danañ texe ak duñ texe bés boo xam ni bët yépp ku ci nekk sa bët di tourné ko fan laa jëm fan laa jëm fan laa jëm mooy yowmal qiyaam kon saxaaba yi ragal gu ñu ragaloon alaaxira ak bàyyi ko xel moo tax fu ñu déggee alquran mu wax rekk bu dee ndigal dañ koy jëfe bu dee tere dañ koy bàyyi waaye nag ki bàyyi wut xel yowmal qiyaam moom bu déggee alquran faale wu ko bu déggee waaraate faalewu ko bu déggee ko wax xadis faalewu ko bu déggee ko wax lu baax faalewu ko waaye nag bu déggee ku koy wax leneen wala mu di ko jay moom daal day kontaan nañu ko bàyyi xel bu baax nag yàlla mu ni kallaa li fi nekk dëgg dëgg dëgg dëgg innahu niki moom alquran ji tazkiratun aw waaraate la wu jot wu mat sëkk wu mat sëkk nee na alquran ji waaraate la ak fàttale gu mat sëkk nee na faman shaa képp koo xam ne nag neex na ko zakarahu na ko jël alquran def ko muy ak fàttaleem na jël alquran def ko muy aw na jël alquran mu def ko muy aw yoonam yàlla mu ni képp ko neex na jël alquran def ko muy aw waaraateem na jël alquran def ko muy aw yoonam na jël alquran def ko muy ak fàttaleem na jël alquran bi ci tibbee diineem waaye nag waaye yàlla mu ni wa maa yadkuruuna ah alquran jii day du waar mukk du fàttali mukk illa an yashaa allah illa an yashaa allah lu dul koo xam ni neex na yàlla maanaam lu dul koo xam ni neex na yàlla loolu mooy lan mooy yàlla suñ borom bi tabaraka wa mooy dimbale ku ko neex ci mu gindeeku waaye it mooy baña a mooy sànk ku ko neex ci ak maandu ñu bari nag suñ ko déggee dañu naan ah kon kay naa toog suma baaxee yàlla la suma ma bonee yàlla la déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko waxee benn bis dañ ko tontu woon lu mel nii ma wax mooy ah kon koy ku nekk na toog rek mu ñu leen déedéet góor góorlu leen ngeen liggéey ndax kenn ku ci nekk fi mu war a dem suñ borom dana ko ko yombalal yàlla waxaat ci alquran ni walladina jahadu fii naa la nahdiyannahum naa wa inna allaha la maa almuxsinin yàlla mu ne ñi nga xam ne dañoo góor góorlu ngir bëgg am njubug yàlla nee na suñ borom dana leen yombalal ak jub ba ñu jub xocc ndax kat yàlla ànd naag ña nga xam ne dañuy def lu rafet di def lu baax dégg nga ko yàlla nag mu ne huwa huwa moom nee na moom yàlla ji ahlu taqwa moom mooy boromuk ragal naanaam maanaam at taqwa ragal yàlla dong lañ ko war a def ragal yàlla yàlla képp lañ ko war a def ragal yàlla yàlla dong ko moom waaw waruñ fi taxaw naan dama ragal diw diw su ma defee daf ma yëg te fekk diw génn na àdduna ak yu mel noonu yàlla képp lañu war a ragal mooy huwa ahlu taqwa waaye yit wa ahlul magfirati moom yàlla mooy boroomu njëggal ci képp koo xam ne jéggalu na suñ borom tabaraka wa yàlla mooy ahlu taqwa moom lañu war a ragal moom lañu war a topp moom lañu war a déglu mu ni digal ñuy def mu ni tere nuy bàyyi waaye it moom rek lañu war a jéggalu su fekkee juum nañ teyit ku ko jéggalu mu jéggal la moom borom bi tabaraka wa taala ku ko jéggalu mu jéggal la mooy huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira kon foofu la suuratul mudaththir yam sunu fàttali teyit foofu lay yam insha allah beneen yoon ñu tàmbali weneen saar wu bees di suuratul euh, suuratul muzammil insha allah noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu boole ñu gindi ñu teg ñu ci siraatal mustaqim di ñaan yàlla mu boole ñu ca ca ña nga xam ni dañuy déglu alquran te di ko jëfe yal nañu yàlla boole ca ña nga xam ni dañuy déglu alquran te di ko jëfe di ko jàng yal nañu yàlla defal jàmm fi dunya wa fil defal ko mbooleem jullit wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh